buntu bi nag bu mat a sàmmoonteel la ndax doomi aadama dana faral di amee ay gaañu gaañ yoo xam ne su bëggee jàpp wala mu bëgg a sangu farata fa gaañu gaañu ba nekk du ko mën a raxas na mu ko daan raxase ci ba mu amee ak wér bu fekkee ne da nga amee gaañu gaañ ci sa yaram nga xam ne itam boo ko raxasee rek benn mu gën a metti mbaa mu yéex a wér mbaa boo ko raxasee am na loo xam ne dam la woon ci xeeti tawat yi te dana la dal boo ragalee ni daal boo raxasee gaañu gaañu bi yow ñu wax mën laa dal mbaa lu ko nuru da ngay déglu nii ñu koy tegalee mooy da ngay seet ba xam bu fekkee sa loxo boo ko tooyalee mën a jekki-jekki raay ca gaañu gaañu ba te du aajowoo nga di ca def garab ba noppi mbaa nga di ca takk aw morso mbaa dara sa loxo mën naa jekki-jekki rek bu tooyee nga raayu ko ca kaw gaañu gaañu ba ndegam mën nga loolu loolu moo njëkk kon moom ngay def su fekkee ne boo jekkee jekki raay ko amaana ndox solu ca mbaalu koy nuru te kon mu andil la ngaañ kon da ngay seet ba xam am na loolu ca mën a diw mel ne mentlato wala xeeti garab yi nga xam ne boo ko ci diwee ndox du ca solu nga diw ko ca ba noppi nag door a raay ca kaw xam ne kon ci kaw loolee nga diw ca kaw ca nga raay ñetteel bi nag mooy su fekkee ne boo ci defee garab noonu du tax nga mën koo raay waaye boo ko bandaasee wala nga ŋaaw ko maanaam takk ko da nga mën a raay sa loxo ci kaw bandaas ga mbaa la nga ca takk kon nga def noonu loolu nag am na jàppandi bu fekkee ne boo ko takkee benn yoon dong wala boo ko bandaasee benn yoon dong du tax nga mën caa awale sa loxo nga mën koo raay kon mën nga ko takk ñaari yoon mbaa ñett ba ci ñeent moom daal daañu la may nga takk ko ay yooni yoon ba àgg ci nga xam ne sa loxo dina mën a raay ca kaw loolu la tegaloo raay ci jëmm ja ak raay ci la nga ko garabale ak raay ci la nga ca takk wala nga ŋaaw ko ca fekkee nag daa àgg ci sa loxo mënu koo laal nag ndax metti gu metti daañu ko wax ca kanam waaye yett yi moom noonu la tegaloo su fekkee dangaa takkoon sa bopp moo xam danga ko takkoon ci ab morso wala nga soloon mbaxana wala nga soloon kaala taragal ne boo dindee la nga defoon ca bopp ba sedd bi dal lay solu nga am ca ngaañ yoon da lay may nga raay sa loxo rekk ci kaw mbaxana ma wala ci kaw kaala ga mbaa loolee nga xam ne moom nga takkoon ci sa bopp su amee nag loo xam ne ba ngay sol mbaxana ma moom mbaxana ma ëmbaaliwu ko wala ba ngay takk takk ba ëmbaaliwu ko mbaa ba ngay kaalawu kaala ga ëmbaaliwu ko boo masaayee jëmmi kaala ga mbaa mbaxana ma mbaa la nga takkoon ca bopp ba loolee nga xam ngay feeñ ba tey ca bopp ba moom nga masaa ko moom ci boppam ndax ndegam takkaaliwoo ko su fekkee na it dangaa tegale la nga teg sa bopp mel na ngaa def ay mbaxanay mbaxana wala ay kaalay kaala te nga mën a dindi ga ca kaw masaa ga ca suuf kon da ngay dindi ga ca kaw mbaayee ca kaw daal di masaa nag la féeti suuf wa in bi xuslin ak doonte ci cangaay la doonte sax cangaayul farata moo la war moo xam nga amee janaaba wala bu doon jigéen deretam jeex waaye amee na gaañu gaañu boo xam ne mënu koo raxas rek waaye mën naa awale loxoom ci kaw mën na koo raay awale loxoom ci kaw kon nii la koy def da koy raay rek awale loxo ba ci kaw mbaa ca kaw lam ci def muy garab mbaa ca kaw lam ko bandaase mbaa lam ko muuree aw bi la tuxurin wala doonte ci lu dul ak laab la doonte sax ba nga cay def garab ga mbaa ba ngay def bandaas ba wala géndal ba fekkutoon sax nga amee laab ni ki ba génn ca wanaw rek daal ci def bandaas bi wala géndal bi bu tee rek ba àggee ci di jàpp mbaa ngay sangu àtte bi benn la dañuy bañ nga defee ne leen ñuy bëgg a wax ci raay maanaam massa ay bot nga xam ne bala nga koo sañ day fekk ba ngay sol bot ya nga ame woon ak laab bu dee fii moom ci raay rekk fu amee ab gaañu gaañu moom duñu seet ba xam ba nga koy takk mbaa ba nga koy bandaas fekkoon na nga ameek laab wala fekkutoon nga ameek laab nekkoon ci tojle du ca wàññi dara man ngaa génn ci wanaw rek daldi bandaas sab gaañu gaañu te gannaaw ba du tee booy jàpp rek àtte ba mooy li nga dégg ñu wax ko léegi du tee nga man caa masaa ka anin tasharat niki bu tasaaroo woon ka anin tasharat mooy su fekkee ba ngay ŋaaw mbaa ba ngay bandaas dangaa ŋaawaale maanaam dangaa takkaale wala nga bandaasaale loo xam ne bokkul ca la gaañ ci sa yaram waaye nag mënul ko woon a ñàkk boole ca bandaas ga wala ca takk ga loolu ak jàpp ndal la ndax bu ñëwoon boo bandaasee fa gaañu wala nga takk ko lañu lay maykat ngaraay ko mooy rek jëmmi la tolloo gaañu gaañu ba lu moom rek ak lu nga ko jege jege faw nga war koo raxas kon loolu day andi ak jafe waaye dañ ne soo ngaawaalee loo xam ne bokkut ak la gaañu waaye mënu su ko woon a ñàkk a ngaawaale mënu su ko woon a ñàkk a takkaale wala mënu su ko woon a ñàkk a bandaasaale loolu lépp mën nga koo raay rek mu yem ak jëmmi fa gaañu gaañu ba nekk. li ñu wax ne boo amee gaañu gaañu boo xam ne mënoo koo ragg waaye mën ngaa awale sa loxo ci kaw kon moom da ngay ragg ci sa yaram ba nga xamee ne dara dalu la fa te fa nga gaañu nag moom nga awale sa loxo ci kaw rek bàyyi loolu la ne bañ koy wax sax day fekk li ëpp ci sa yaram amul ay gaañu gaañu waaye bu fekkoon daanaka yow sa yaram yépp ay gaañu gaañu la lu néew a néew moo ci amul gaañu gaañu dañ lay far noppal ne la faral rek tiim jërul ngay raxas la wér ci sa yaram tam lu néew a néew wëlbatiku juraay la nga xamee ne moo amee gaañu gaañu te daanaka mooy sa yaram yépp yépp yow faral rek tiim kooku mooy bi nga xamee ne kon la gën a néew ci yaramam ni ki benn loxo mbaa benn tànk rek moo ci wër amati gaañu gaañu lu bokkut ak loola rek amee nay gaañu gaañu kon duñ ko wax ne ko benn loxo boobee mbaa benn tànk boobee da nga koy raxas te la des sa yaram nga di ko raay ñu koy wax ne ko rek faral tiim benn yoon ñaareel bi nag mooy la ëpp ci yaramam sax moom wër na mën na koo raxas ba noppi raay la nga xamee ne moo amee gaañu gaañu ndax la amee gaañu gaañu moom bariwut lépp ci yaram wi moom dafa wér kooku dañuy seet kooku dañuy seet bu fekkee ne kat bu defee liñ ko wax raxas la wér ci yaramam raay la wéradi ci yaram wa dana ko andil ngaañ lu méttee métti dana ko andil métti lu métti lool mbaa tawat ja yéex a wér lool mbaa mën na caa doxe sax faatu dañ koy wax ne kon yow itam tiimal rek waaye bul jéem a raxas la wér ci sa yaram bul jéem a raay la amee gaañu gaañu ci sa yaram demal rek tiim kon nga seetlu bu baax jàppandal gi nekk foofu sa yaram lu baree bari mën na caa wér nga xam ne wóor na la ne mën nga koo raxas fa gaañu gaañu am ci sa yaram mën nga koo raay waaye nag bala ngaa def loolu na nga nemmi ku ba xam boo ko defee lu mu lay jural bu fekkee du la jural lenn ngaañ lu metti nga def noonu waaye bu la nar a andil ngaañ lu metti rek bàyyi lépp noonu te dem tiim bu fekkoon ne nag da nga amee gaañu gaañu boo xam ne dafa méttee métti ba sa loxo mënu koo laal ba noppi nag mu nekk ci kanam wala ci loxo kanam wala loxo mooy cëri tiim ndax tiim moom weesuwut kanam ak loxo loolu boo ko seetloo li muy tekki mooy yow boo doon jàpp faawu njàpp manqué boo dee tiim itam faawu tiim bi manqué lu mel noonu nag da ngay far jàpp ndax ndegam moom boo tiimee mu manqué boo jàppee mu manqué ndax am nga gaañu gaañu bu nekk ci kanam mbaa loxo te loxo mënu koo laal la nga mën a laal moom nga raxas ko te fa nga xam mënu koo laal nga bàyyi ko noona su fekkee nag da nga amee gaañu gaañu boo xam ne loxo mënu koo laal ndax na mettee waaye nag nekkul ci kanam nekkul ci loxo dafa nekk ci feneen ci ciri njàpp yi mel ne mu nekk ci kaw ndëggu li wala ci biir ndëggu li kon loolu li muy tekki mooy mën ngaa tiim tiim bu mat waaye booy jàpp moom faaw njàpp mu manqué ndax nee nga gaañu gaañu ba nekk ca tànk ba ci misaal loxo mënu koo laal kon boo doon jàpp doo mën a laal foofa njàpp mi day manqué waaye boo doon tiim nag tiim bi day mat ndax da nga mën a massa sa kanam ak say loxo foofu nag moo am ñeenti wax daa am ñu wax ne ak lu mën di am da ngay tiim rek ndegam boo jàppee mu manqué te boo tiimee moom day mat da ngay tiim rek am ñu ne déedéet ak lu mën di am da ngay jàpp rek ba noppi nag boo àggee ci fa nga mënta laal nga dégg ko bañ koo laal am ñu ne déedéet dañuy teylu ba xam su fekkee ne li ëpp ci say cër dañoo wér nga xam ne boo doon jàpp li ëpp ci say cër moom ndox ma dana fa àgg fu néew néew rek la ndox ma dul àgg kon foofu da ngay jàpp waaye su fekkoon ne la amee gaañu gaañu daa bari ci cëri njàpp yi ba nga xamee ne boo doon jàpp itam lu néew ngay mën a raxas la ngay déeg mooy ëpp kon da nga koy bàyyi te tiim nga xam ne ba mu wax moom dafa teqale bëggul ci ne da ngay jékki-jékki tiim bëggul ci ne da ngay jékki-jékki jàpp day seet ba xam boo doon jàpp cër ya ngay raxas dana bareem du bari mu sukkandikoo ci ne la jàppal mbaa tiimal ñetti waxa nga ko bi ko ñeenteel nag moom la la borom téere bi taamul te it ñu bari wax nañ ko mooy da ngay boole jàpp ak tiim boole jàpp ak tiim nag mooy da ngay jàpp la nga mën a raxas nga raxas ko fa gaañu gaañu bu nekk te mënoo koo laal nga bàyyi ko bañ koo laal ba noppi nag boo demee ba jul rekk des ci nga tiim tiim bu mat nga xam ne kon da ngay boole jàpp ak tiim boo taamoo nag jooju wax ba di ko jëfandikoo soo xasee jàpp nañ la ko sante ba ngay julli nga daal di tiim su fekkee njàpp moom defoo dara lu koy toj bu àggaatee ci bëgg a julli du aajoo ngay baamu njàpp ma li fekk njàpp moom lu toj rek defoo lu koy toj rek yaa ngi moom ba tey tiim bi rek kon moom nga yeesal ci boo ñu bëgg a julli daal di tiimaat tiim bu yees su fekkee da ngaa bandaas sa gaañu gaañu wala bu dee damm damm nga def ca li ñuy wax ay géndal ak yu demee noonu nga xam ne boo àggee ci jàpp wala sangu farata da nga koy raay rek bàyyi na la wóor ne soo demee bay julli far bandaas ba deñ wala géndal ya deñ julli ga moom yàqu na da ngay daal di gaaw nag delloo ca bandaas ba bu dee géndal ya itam nga delloo ko ca dellu ko raayaat nag raay bu yees ba tey itam bu fekkee ne defoo dara lu toj njàpp ne ko itam di julli mbaa dara bandaas ba nga defoon ci sa yaram wala la nga takkoon ci sab gaañu gaañu te ba ngay jàpp da nga ko raayoon rek dafa jekki-jekki deñ wala yow sax yaa ko dindi ndax bëgg a yeesal bandaas ba wala bëgg caa def garab moom daal moo xam moo dañal boppam moo xam yaa ko dindi bu fekkee ne njàpp ma nga yoroon tëjagutoon da ngay daal di gaaw boo yeesal bandage bi nga yeesal ko boo ko cay delloo nga delloo ko ca ba noppi nag daal di koy masaawaat fa saasa su fekkee bëgg laa ñàkk njàpp ma nga yore su fekkee ne li nga masaawoon ba ngay jàpp dañal na boppam mbaa yaa ko dindi te gaawoo ko ca delloo mbaa ba nga ko ca delloo masaawaatoo ko bu yàgg rek mu dal yàqu mel ne amatoom jàpp faw nga jàppaat loolu kon mat naa seetlu lépp loo def ci sab gaañu gaañu nga xam ne soo dee jàpp wala ngay sangu farata moom ngay raay su demee ba dañal boppam wala yow yaa ko dindi ngir defaat ci beneen wala ngir defaat ci garab lu mu ci mën doon daal bu fekkee ne njàpp ma nga yore woon bëggoo koo ñàkk boo ko bandasee bandage bu yees mbaa nga delloo ci ba ci nekkoon da nga koy masaawaat masaa bu yees soo ko tayee bàyyi ba mu yàgg te masaawaatoo ko rek xamal ne kon yoratoom njàpp waaw da ngay njàppaat njàpp mu yees ba noppi nag boo ci tolloo masaa ko